salaamaaleykum ki sage femme yi laay ñëw ba léegi lii man man la dal te li may wax sama jabaru papa mooy sama seede ak sama tante bi ñuy naan tànxawaat bi ma ëmbee à l'âge de 16 ans hôpital bi du ma tudd turam ndax mi ngi fii sama côté mais ñi may wax ñoom bu ñu dégloo sama vidéo bi dañu xam bu baax fi may waxee maa ngi dem war a accoucher ci salle d'attente bi lañ ma teg nekk naa ci salle bi 17h ba 21h30 ñu daal di may yéegal ci kaw table bi gis nga ma yéegal ci kaw ma ne médecin bi dama bëgg a naan xam nga lan la ma wax balaa ngay naan dangay am doom ma di ko saraxu pour naan ba may jooy mu jël ndox sotti ko sama put bi yamul foofu ki xale bu am 16 ans xamul luy accouchement xamul dara xam nga la def ubbi sa tànk yi man xaw ma luy ubbi ay tànk ciseau la jël dafa képp sama pooj bi tey gi bu ma rusul woon yàlla barki Seydina Mouhamed ma war leen cicatrice ki sama pooj bi fi ko teg parce que sama yaram man du dindi cicatrice daf fay des ciseau la jël képp sama tànk yi ba mu dagg pour mu mën a ubbi sama tànk yamul foofu de yow nit nan nga ko mën a accoucher nga dindi doom ji nga dindi doom ji ci biiram pareegoo de diggante cordon yi bi nekk ci biiru yaay gi ak xale bi nga teg ko di xool xale bi ndax nooyi na ndax nooyiwul gis na sage-femme yi ñoo war a am yërmande ci ñun ñi nga xamante ne ay jigéen la mm-hmm. ñoom buñ leen di réew dañ def bépp yërmande pour mettre leen à l'aise ñoom ñoo war def seen liggéey wala bàyyi soxor boo dee ma xam ne sa xol bi baaxul munoo dimbali nit yàlla may ko mu mucc nga démissionné ci liggéey bi nga nekk nga démissionné te tamit état état na jóg état na jóg parce que lii di dee ay morne bari na souvent sa doom dee lan la lay tontu yaa ubbiwul say tànk wala yaa deful liñ la wax wala da dangaa réew wala ba nga koy def da doon neexoon carrément man loolu lañ ma wax ba koy def da neexoon kenn yëguwul yuuxoo yuuxoo defuloo dara ba muy neex nag nga di ko def tey bu méttee muñ ko sage-femme nañ am yërmande nañu am yërmande gi sama vidéo ndaw si billaay wala dafa yàq sama journée carrément démb xaw ma lan laa ndogu xaw ma ci lan laa nekk ndax xol bu jeex ndax changement mi am yërmande na nañu am yërma te état wax ci lii état wax gis état bi bu ci waxul nag gis ñun personnel ñun jigéen ñi dinañ ci jóg. te bis buñ ci jógee billaahi état dina bëgg mu yem te du doon su boobaa dootul doon ay deewu xale kese deewu xale ak mat lay doon parce que lii metti na lii ñaaw na ñoom état ñi am doole. seen jabar yi ku ci war a accoucher ci clinique yu baax lañ leen di teg ay médecins yu wóor lañ leen di boole yoo xam leen di accoucher ga di ñuy accoucher di seetaan seen livre wala toog di waxtaan mais état na def liggéeyam te sénégalais yi ñu toj seen xol yi sage-femme lañ toj seen xol yi nekk benn xam ne ñun ñi bu ñu amoon lu ñu gënal bu ñu matu lu ñu wax dinañ ko def mais médecine moo nekk loo xamante ne kenn mënu ko muñaale ak dara na ngeen am yërmande yéen sage-femme na ngeen am yërmande na ngeen am yërmande ngir yàlla na ngeen am yërmande am leen yërmande am leen yërmande ngir yàlla am leen yërmande am leen yërmande am leen yërmande lii rek laa am lu ma leen di wax am leen yërmande soxor